بصرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أبدا إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجهت لي هدايا بالمبرات أمست تطيب نفسي كي أميل لها وولت ميل أعوذ بالله من ميل لغير رضا ومن سدودي عما سن أو فردا بسم الإله الذي القرآن قد نزلا منه ابتدائي وأرجو عنده النسلا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوي نوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 niñ leen baaxoo nuyoo mooy nuyoo lislaam bi nga xam ne moom la ñu yàlla boole mooy nuyoo bi waa aljanna di nuyoo mooy nuyoo bi tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci suñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaanal a Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla yàggal ko yàlla wéral ko nay naal di eggale tey naala di eggalewaat di sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seere noonu lañ koy ñaanalee Cheikh Aboubacar Sy Mansour noonu lañ koy ñaanalee Baye Cheikh Mahi noonu lañ koy ñaanalee Baye Cheikh Tidiane ca Léona Niassène noonu lañ koy ñaanalee Baye Thierno Bassir noonu lañ koy ñaanalee xalifa Ndiassane ak bopp Canaba ak mboolem xalifa seen yëpp yi nekk ci réew mi euh, mbokk yi niñ leen baaxoo def euh, di leen indil dimanche bu jot seen émission keppaaru mag ñi ci forme yi ñu leen ko baaxoo indil waaye ci seen télé réew mi TV di ñaanal kilifa gi alxaaji Mbañik sunu borom dolli ko jàmm waaye dolli ko sutura di ko ñaanal Euh, alxaaji Moustapha mi nga xam ne moo jiiti liggéey bi di koy ñaanal ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ci wàllu xarala gi ba ngeen mën a dégg suñuy kàddu alxaaji Malick Faye ak Momo la ak Mohamed la ak mbooleem téléspectateur téléspectatrices yi nga xam ne yéenay topp seen télé Rewmi TV tey ñu indi leen émission keppaaru mag ñi waaye fas yéene cee waxtaane jàmbaari lislaam euh, jàmbaari lislaam joo xam ne bu ñu tuddee turam yëpp danañ xam ne liggéeyal na lislaam liggéey lislaam boo xamante ni jar na ñu di ko waxtaane ñu di ci ànd ak suñ bokkum daara Serigne Omar Touré Serigne Omar Touré it di jàngalekatub alxuraan bu mag a mag fii ci e, jàmmalaay e, di liggéey liggéey bu rëy waaye di bay waar waar wu am solo solo ci lislaam moom lañ fas yéene àndal waxtaan wi xam naa dama koy jox mu nuyoo rek incha allahu taala su ko defee ñu njëkkanteeg waxtu wi incha allahu taala daal di ñëw ci li nga xam ne moo ñu tax a dajee moom lañ war a waxtaan incha allah sëñ Omar fal tatafaddal mashkura aoudu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama taslima eh, mbokk yi yi ñuy seetaante di ñu ak di ñu déglu fii ci eh, réew mi fm ñu ngi leen nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi comme ni ko sëñ Mouhamadou Lamine Baara waxee di suñu kilifa al cheikh Mouhamadul Muntaqa radiyallahu ah, ayyadahu llahu wa nasra di ñaan yàlla yàggal ko fi ak mbooleem mbokkam yi mu seqal diine ji ci réew mi kilifay diine yépp hmm. bàyyiwuñ kenn comme na ci suñu kon waxtu bi daa gàtt du ma guddal ci wet googu di nuyu kilifay kër gi hmm. ak ñi fi fekk di wax asalaamaaleykum baarakallah sëñ euh, nuyoo bi jot na jotale na Cheikh Mouhamadul Mountakha bu nuyoo bi tegoo ci loxoom rek jàll na ci mbooleem mbokkam euh, mbooleem ay bokkam am na solo loolu xam naa sëñ Omar tey ñu bëgg a waxtaanee hmm. a Cheikh Salih Mbacké ak seex Saalix Mbàkke moom seex moom seexul xaddiim liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam dañ ciy fas yéenee barkeelu rek ñu dañ ciy fas yéene barkeelu as tuut rek ndax xam naa ne waxtaani sëñ Saaliw xajut ci ay minutes waaye xajut ci ay waxtu daanaka sax mën naa ne xajul ci ab bis waaye dañ ciy jukki dara rek fas yéene koo waxtaane mm. euh, sëriñ Saalix Mbàkke moomu ñuy waxtaani moom mooy kan ñan ñooy ay way juróom ak kañ la gane àdduna mm. ak ci diggante yan loxo la yaroo mm. incha allahu taala foofu la ñuy jëkkee suñu laaj su ko defee ñu door a jàll ci leneen incha allah. Mm-hmm. Uh, sëñ Maam Lamine Baara xam naa ginnaaw buñ jégguloo uh, baat bi nga wax na xanaa barkeeloo ko. Mm-hmm. waaye moom doon na koo xam ne neex naa waxtaane naqari naa waxtaane. Mm-hmm. ndax dundam yaatu na mooy naqar naa waxtaane. ndax lu toll ni juróom-ñeent fukki ko ak lu topp mhm. kilifa gu toll ni kooku lam mhm. ca ay injaa injaazaat yam ci mhm. amal kooku naq waxtaane ci ay émission bu benn waxtu waaye ñaareel ba tamit mooy neex naa waxtaane mooy doon na koo xam ne nit ñi sopp nañ ko di ci gëstoo ko wax ak a bind foo gëstoo rek da nga am ko ko loo ca mën a gëstoo loo ca mën a loo ca mën a bind. dëgg la bari na ay borom yi xam-xam yu ci bind yu ci wax. yoo xamante ne ak ñum yaroon ñu fi fekk yoo xam ne. kon diggante ñooñu la ñu gëstoo la ci moom. xëñ na loola ko ko dajale rek mu doon lu ñu jëriñoo waxtaan wi xam naa moom. Mhm. li mbokkum baax dañu wax mhm. ba mu doon loo xamante ne dañ koy jéem a. Mhm. jële bind yu ñuy jëriñoo. te mu bañ a doon waxtaanu yéemu képp. yéemu ga baax na waaye nag. fas yéene nañ li muy gàtt gàtt. ñu dajale loo xam ne dañ ciy jële bind jëriñoo ko. mu bañ a doon loo xam ne day doon waxtaanu eskay eskay bañ a doon eskay eskay képp. sëñ Baara kon boo ma doon laaj mooy kan. xam naa moom de ganiyun ani taarif la ñuy wax. Mm-hmm. moom day euh, daanaka sax nag moom doy na walif ñu koy xamle. Mm-hmm. waaye jëlal ku mel ni rek boo ne sëñ Tuubaa ko jur. Mm-hmm. boobu boobu xamle bu doy. dëgg la comme signature bu am solo mu naan as-Saalih ibnu Cheikh al-Xadim boo xoolee daanaka. am signature daal moo moo ci daan nekk ba ca toppaat. bu dee ci waajuru jigéen itam. mooy danga naan soxna Faat Jaxate euh, fu mu ganee jamono. nga ne mi ngi ganee jamono. njaareem. njaareem ci 1915. 1915 1915 la gane jamono gane jamono njaareem. benn at kon la ko sëñ Abdou Lahad ak sëñ lañ ko la ko mage. Mhm. waaye moom 1915 la gane jamono. barakallah. Mhm. Euh, bu dee may nga ñu ko ñu continuer ci waajur yi. Mhm, bisimilah Serigne Touba moom. Euh, mën nañ caa bañ a sori ca xamle ga. waaye bu dee waajuram yu jigéen. mooy ku wax Soxna Fat Jaxate Euh, di doomi ku ñuy wax Serigne Modou Assa Jaxate mhm. ñu doon bokkoon ci askanu Mbakol dëkk bu ñuy wax Mewnu Jaxate mhm. doonoon ay niti alxuraan mhm. yu daan dundee seen ñaq yu daan dundee seen ñaq dafa mel ni sax boo ñu ko mayee mel na ni sababuk Euh, buñ suñuy nopp mel na ni ak dikkam ci waajuram. ci kër hmm. sëñ mag mel na ni. Hmm. bokk na ci la ci sëñ bu mag bi doon doon sart. Hmm. kilifa yam yam yam yam yam yam yónni woon. ca loola. yàlla nañu yàlla jéggal. mel na ni sartoon na ci ñuy jàng alxuraan ji dundee seenu ñaq. <laughs> day mel ni bañ demee itamit maam Thierno Birahim ak ñoom àndal bañ demee. Euh, ba mu ko laajee ca ca jotaay ba mu ko doon laaj mag ñi dañ ne ko ah. li ngay wax de yaakaar naa kër ku ñuy wax sëñ Modou Assane ca ca Mbaaxul maam Thierno Birahim ba mu àndee ak ñam doon àndal dégg naa bañ àggee mhm. taxaw nañ lu yàgg mhm. mel na ni dalaluñ leen mhm. ba sëñ ba ubbee da ko ne dama kóllërenteeg suñu borom kat bala maa wax ak kenn ndeysaan sama waqf bi léegi kon xam nga comme lañ doon laaj kuy dund ci alxuraan donga yi itam ñu ngi ko wër barakallah barakallah bi ci toppaat itam dunde gaw ñaq it mel na ni ba mu ko laajee nee na ko ah sama mm. sàqum daaw bu doon léegi mooy magasin ba ma mm. bayoon de jeex ak bu bu mu ren mi sax laalaguma ko mu daaw ma ci laay dund ba tey baarakallah <laughs> baarakallah eh, loola kon <laughs> nga xam ne critères yi sëñ Tuubaa yi waxoon borom daaru <laughs> moom ci jigéen ma wutal soxna su jugee ci diggante ñaar yi waaw critères yi moom fekk na ko waa kuy dund ci biir alxuraan ba noppi waaw tey ñu deew ñaqam lu am solo nag yi noonu nag ci jamono ji te am solo lu am solo lu am solo ndax danañ ci déggee ne kat yëngatu ci diine mhm. moo xam ku koy jàng wala ko jàng téewut mhm. boole ko am looy yëngatu loo xam ne saw ñaq saw ñaq am na ca solo lool loolu loolu loolu kon kooku mooy ay waajuram barakallah euh, bu dee boo ñu ko may wala bu dee am na beneen laaj bi ci war a toppaat mhm. muy fu mu jaar ci njàngam yooyu min na kon xam nañ ne si ñomar euh, li am solo te am solo mooy sëñ Saalix ab signature am Saalih ibn Seyxil Xadiim da ciy bind. Mhm. loolu moom leer na. Mhm. ndax boo bindoonub leetar. Mhm. bind ci ilaa Saalih ibn Seyxil Xadiim moom du dem ci menn réew mu dul Sénégal. déedéet te bu ñëwee Sénégal yi du dem feneen fu dul Touba. te bu demee Touba kenn du ko jox ku dul Sëñ Seexum Sëñ Saalih ñu nga fi nekkal. kon loolu moom lu leer la. mooy siñ Saalih doomi Seexul Xadiim la. Seexul Xadiim nag ren yi noo di taarif la. soxna Fat Jaxate mi way juróom bu jigéen it li ci li nga ci leeral dafa am solo mooy sëñ Tuubaa moo yónni borom Daaru yi uh-huh. ak mag ñam yónni woon uh-huh. sàkku ne dafa bëgg ñu wutal ko kenn ci ab àndandoo boo xam ne bu ma ko mënee wax ci waxin woowu uh-huh. maanaam soxna soo xam ne fa muy bàyyi ko ay wéyu juróom ñu man alxuraan la ñuy doon tey dundee seenu ñaq looloo tax borom Daaru Muxti bi mu laajee ñu ne ko kër si Modou Asta Jaxate rek lañ gis lu mel noonu bi mu demee bi mu nuyoo la tax ñu yeex koo fay mooy da koo fekk ci wax alxuraan kon la ko borom Tuubaa woon ne ñu sax ci alxuraan dikk na. bi mu waxtaanee mu ne ko sama sàqum daaw jeexagul. mu ren sax laalaguma ko. kon kuy dundee aw ñaqam loolu moom lu leer la. kon déggee na ci ne Serigne Saliha ci askanu Mbakol la bàyyi la way juróom jigéen bàyyi ko. ci askanu Mbàkke yi la maanaam diggante Mbàkke ak Mbakol la dàmbee. muy ñaar ñaari ñii ñooy ñaari way juróom. wér na wàllu jàng. Mhm. sëñ Omar buñ bëggee xam sëñ Saalix fan la jàng jaar ci wàllu jàng. ak lan la réalisé ci lu jëm ci wàllu xam-xam. Mhm. Mhm. jërëjëf Cheikh euh, Mouhamadou Lamine Baara mm-hmm. euh, moom sëriñ bi fan la jaar ci am njàng mm-hmm. ku ñuy wax sëriñ Alsaan Jaxate moo ko jàngal alxuraan sëriñ Alsaan Jaxate sëriñ Alsaan Jaxate mm-hmm. waaye nag ci biir kilifteeku sëriñ Amsatu Jaxate day mel ni Alsaan ci kilifteeku sëriñ Amsatu la nekkoon léegi nag mu yor leen moo ki bokkam ay sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Abdou Samad ak ñooña doon mu leen doon jàngal foofu ci kër sëñ am sëñ Amsatu Jaxate ci kër sëñ fa lañ jàngee alxuraan fa la jàngee alxuraan ba mokkal ko ci diir bu gàtt mook sëñ Abdou Samad moom sëñ Tuubaa waaw baarakallah ñoo ñoo bokk jàngandoo foofu hmm, alxuraan hmm. ba eh, tari ko bind ko baarakallah hmm. bind na ko ci kanam sëñ Tuubaa doonte nag jotut gis kaamil ya ndax dañ ne ba ñuy di ko jébbale bañ daataan gisee ci lañ jëg ne eh, xew-xew boobu ci lañ jëg xew-xew bi xew xam ne jotuñ gis sëñ Manu Saa lañ jox seen kaamil waaye sëñ Alsaan Jaxate moo ko jàngal alxuraan ci ci bi am njàngam itam bu dee njàngam alxuraan la mm-hmm. am na ci ñaari mbir mm-hmm. benn ba mën nañ koo jëriñoo benn ba mën nañ cee xamee suñ boroom ak ak i mayam mm-hmm. ñaari jaani benn bi ak may la benn bi ak Eh, ak ak ak ak ak pës pës seefam ak. Mhm. ak mhm, mhm. loola nag mën nañ koo jër jëriñoo ko kiy jàng wala kiy dugg ci mbir xam ne. pës seef itam mën naa dimbali ci lu bëree bëri. barakallah. Eh, dañuy wax ne maanaam. boo jëlee ci côté njàmbaar gi moom. ak pës seef ba. digg naa métti daara lu mu métti métti lu mu tarta ndax li leen Sëñ Tuubaa di jur jur jur kat. teewut. dañ hmm. leen daan teg ca nañ daan jaarale nit ñi. taarakallah fi ñëpp di jaar la ñuy jaar te moo ne te moo ne booba de lu ne ngay dikkal sëñ Tuubaa. waaye fa nit ñuy jaar ci tumuraanke ak tarbiya. Hmm. dañ war a jaar. Hmm. bu ëllëgee ñu war a doon li ñu war a doon. Euh, loola euh, jaaral nañ ko fa. taarakallah ndax nettil nañ ni boo ñëwee ci wàllum nangu gaak nee nañ maanaam fii boo ñëwee ci corniche Touba fi jàkk yi sëñ Saaliw ji nekk ci sëñ Cheikh sëñ Cheikh ji nekk foofa ñëw nañ fa mhm. ba tàyyi ay tool te nee na aw daal du nekk ci tànk seen tànk barakalla boobu sëñ koy dikkal kenn mënu laa xam nu mu toll waaye nag booba tànk bi booba dañ daan liggéey di ko ñëpp leen waajal ñi dañ daan liggéey di ñëpp di ko def bu ñaareel ba nag moom boo ñëwee ci wàllug may gi ci mu xel moom yéeme woon na yéeme goo xam ne xam nañ ne nag euh, sëñ Touba fàggul na ko ndax mhm. dañoo wax ne. Mhm. Euh, juróomi isib yi ko mujj ci njàng benn bis la ko bind. loola nag euh, jëlit naa ko ci xam nga yu mel noonu day laaj am. sanad bu mhm, baax a mhm, baax sanad bu euh, kilifa goo xam ne moo ko yar dama dul xam ba xam dana taamu ma tudd koog moom. waaye moo mu wax ma ne ma. moom day daa xëy bis rek. dem ca soxna sax soxna sëñ alsaan wala soxna yi nekk ci biir kër ga. ca daara ji ne ko damay wàcc suba. nañ ma toggal ay laax moom sëñ bi ci bopp sëñ saa si ci bopp tut <laughs> nee na mu ñëw wax ko sëñ bi di ko laaj dem mi ngi mu ko ah moo la wax loolu mm-hmm. juróomi sib dese na ko de mm-hmm. waaye daal ne daal ne mm-hmm. waaye moom day na ma ko xamee woon de lu mu wax lu wax lu wax dana ko def <laughs> yàlla dogal na nag uh-huh. <laughs> nee na mu ñëw mu jukki ab isib jox ko mu taxaw fële mu toog fële ab tuuti ñëw tari ko Mm-hmm. mu defaat ko muy ñett ba juróomi isib yi jeex mu dar gémmi gi sëñ bi sax dégg naa dar gémmi ne ko da nga may jombal kon loola loola moom mayug yàlla la mayug yàlla la euh, ñu yéeme ci suñ borom xam ne moom lu ne da koy da lu ne mën na ko lu ne mën na ko lu ne mën na ko may ab jaam wet googu moom waaye nangu ga ak nangu bu ñu demee ba ci fax fi mu jaar jàng xam-xam mm-hmm. nangu ga danañ ci amaat ak ak nangoon gaa sonn ci njàng mm-hmm, loolu buñ ko jëlee rek euh, buñ ko tegee ci jamono yi nga xam ne kon xale yi mën nañ koo jëriñoo lool lool lool lool tabaarakallaa nga xam ne Seydina Sëñ Hasan Sëñ Alsaan mhm. la jàngee alxuraan moom la jàngee alxuraan maanaam am léeg-léeg danaa am kilifa tuxoo fii dem fii tuxoo fii mhm. mhm. nga xam ne sëñ Bousso bi nijaayam a ko dalal dalal jox ko nijaayam moom sëñ Bousso bi maanaam nga xam ne maam la ci sëñ Tuubaa mu yor ko ab diir ba mu toll la tey ji dañu tafsir Mbàkke Ndumbe faatu mu dellu si ci loxoy baayam waaye sëñ Saliou ci benn loxo la jàngee alxuraan muy sëñ Alsaan Jaxate waaye nag ci biir kilifteefu sëñ Xamsatu Jaxate wàllu xam-xam mhm. maanaam dafa mel ni bariwule woon na ko lool macha allah eh, fan la eh. wàllu xam-xam insha allah xam nga kilifa gu toll ni moom eh, damay wax ne mhm. dafay bari ay abaad mhm. maanaam day doon ak nit koo xamante ne day day day day day doon ab ab multidimensionnel lañ koy wax wet gu ne Hmm. wàll yi nga koy mën a jàngat jëriñoo ko day bari. day bari rawatina fii ñun bu dee kilifa ak diine li ëpp a bari. Hmm. côté spiritualité bi yeeg. Hmm. wàllu barkeelu ga ak yooya. naam loolu rëy la waaye nag li ci doomu aadama gën a mën a jëriñoo. léeg-léeg muy lañ mën a roy. dëgg la loola day mat a bàyyi xel. wàllub jàngam nag da cee bari ñu mën a roy. ndax nitu xam-xam la woon lool lool lool lool. ndeysaan. Euh, euh, maanaam damay. dañuy wax ne am njàngam. Mhm. mi ngi ko tàmbalee tindoo di xam nga wax naa la léegi ne la bi mu mokkalee alxuraan bi di kaamil. Mhm. sëñ Modou Moustapha la jox seeni kaamil. mu yóbbu mhm. leen tindoo di. ci jàngalekat bu newoon foofa. ba mu fa jàngee ab diir. Euh, soxna jaxat soxna faat jaxate jële ko fa ci kilifte fukk hmm. euh, sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha léegi nag mu dem mbaakol xëñ ne lam ci jublu itam hmm. wet yooyu moom bu fa demee hmm. sëñ Touba moom du kenn doomi sëñ Touba du kenn waaye nag fa nga xam ne féete nañ lay waajur ci wet ca wàllu taxaw ba léeg-léeg. dana dëgg la dëgg la waaye boo jegee ci côté Bawol gi mel na ni. cër ba dana tax maanaam ab gën a def ci. <laughs> doon moom yàlla <laughs> defaloon na ko ba mu demee nag <laughs> jaar na fa ci jàngukaay yu bari. foofu rek danañ taxaw ci farloom ak bëggoonam xam-xam. Hmm. jaar na fi sëñ Mor Saasum Jaxate moom sëñ Xaadima Jaxate. Ah, ndeysaan sëñ Mor Saasum daan na wax naan. Hmm. Eh, dañuy wax ne sax ba bañ ko fay dem ba bañ koy yebal mu jàngi foofa. Hmm. ak di ko fa wutal am nekk waaye ku ñuy wax sëñ hmm. Modou Koumba Touré. Hmm. Eh, jur sama waajur moom la yabaloon moom lañ moom lañ yónni woon. Hmm. ba mu demee ngir ñu wutal ko ab eh, nekk waaye ak foofu. waaye nangu ga. sëñ Mor Saasum Jaxate doonoon ku ku nitu yàlla ku baax waaye daa amoon aal aw tàngoor aw tàngoor ndeysaan waaye nangu gi ci moom dégg naa danaa danaa wax naa kii hmm. bu dundee dana am barke daa ko wax sëñ Saaliw alhamdulilah rabbil alamin maanaam li ko sëñ Tuubaa di jur jur jur loolu yëgu ca daara ndeysaan dañoo wax ne itam bëggoon a xam-xam daana xëy ci mbaakool dégg naa hmm. xëy waru fasam mhm. bu xëyee dëpp kaasu kasi kafem naan kafe ba noppi mhm. dana xëy waru fasam mhm. balaa duggaat ci kër gi <laughs> tàkkusaan dana jot lay door a mosa dara ndax ja dana dem lu ma juróomi dëkk yoo xam ne mu jël fa bind bu demee dana fa jëlu bind dil sar balaa ak siwaat méew jant bi day eh. jegee so mu door a mën a mos dara foofu la ko xam-xam toll woon foofu la ko xam-xam toll woon ci loolu nag ba tey bind la bu gonee jàngee jëriñoo ko ci bëgg gum bëggoon xam-xam ci wet tabaraka jaar na foofa ginnaaw ba itam ñëw na suñ ma dem suñ ma dem bu njaareem suñ ma dem bu njaareem ndeysaan tubarkaal suñ suñ ma dem dara wax naa mokkal gi dégg dégg gi nekk ci moom dara ñett la daa wax danaa dégg gi nekk ci diw mm-hmm. ak mokkal gi nekk ci diw ak nangu gi nekk ci diw comme daje woon ci moom rek mm-hmm. eh, dina yéeme lool waaye Sëñ Saaliw moom mën a mokkal ak dégg dañoo xam ne ma dem bu ko daan jàngal bu ca jaaree ba noppi mm-hmm. dégg naa sax daal na jàngale jàngale ba yàgg mu mel ni day dafa yéem guddaayu bind bi mhm. di ko laaj ba xam doy na waaye bu ca noppee nam ca jaarale bu ca noppee ah nam ca jaare woon la cay jaare ko gënuma la koo dégg gënuma la koo dégg loolu <laughs> dem ñim jaar ci njàng sax am na ñoo xam ne ndax ko xam ne daan xëy yoroo fasam di wër rek di wër waaw di wër xam-xam ndeysaan xam-xam yoo xam ne sax jàpp nañ ne boo ñëwee ci jàngukaay euh, jàngukaay diine yi léegi eh, eh. am na jàpp nañ ni ñi ñi ñi moderniser seenum njàng jàpp nañ ne léegi lañ ko tàmbalee jàng fekk moom booba ca jamono yooya. Mm-hmm, mm-hmm. la ko la ko jàng. la ne boo jëwee ci li ilmul géographie ñuy wax. Ah, géographie yàlla mayoon na ko ci lool. ndeysaan ilmul nujum yàlla mayoon na ko ci lool. ndeysaan Euh, am na mag mu ma nettali ne maanaam monteur nii daana ko réglé di xool jant bi nii. <laughs> yor di ko di ko ci réglé di ko réglé ci jant bi. <laughs> jëralu ko woon yor bu sol wala daara fu mu taxaw day daal di orienté wu rek. daal di mën a orienté te loolu ne wa alaamaatin wa bin najmi hum yahtaduun. hum yahtaduun loolu lay dee sax. yàlla mayoon na ko ci lool. tabarakam comme daal nitu xam-xam la woon koo xamante ne luñ mën a roy ci moom la. loolu mi ngi doon baax bisimilah. kon foofu la jaar ci jàng lim jëmmal ci xam-xam itam. dañuy wax de jàng ak jàngale moom. Mhm. daaraka jotadi jotadi jotadeem waaye dañuy wax ne kenn doyu ko ci woon. wallaay ndeysaan. jàng ak jàngale. Mhm. kenn doyu ko ci moom. ndeysaan euh, daanaka ku ca daa def itam da nga ko cay jàppal noonu waaye doy ko ci moom. ndeysaan ngir ngir may ga ko ci yàlla mayoon ak xam gum ko xamoon. yéeme na maanaam gëstu gi mënoon a gëstu rek maa ngi gis. Mhm. benn mbokkum baax mu nekkoon keer nee na. mas naa ñëw loolu sax ñu koy nettali bari na. ñaar da ngay tukki tukki bu nekk ci réew yàgg boo accès mhm. dana la fa nettalee nettali nettali ba nga xam da ngay mujj dangay ngay waaru <laughs> nee am na mbokk moo xam nee na nee na bi mu ne ko <laughs> ah, ki ñu wax sañ Bachirou Faye moo ma ko doon nettali nee na yàgg na keer lool nee na bi ñëwee nee na <laughs> moo bi may nettali naa nu barab sàngam di nàngam nangam nee na bi mu nettalee ba may waaj a tàggu ma ne ma sàllaaw di diw ma fa damaa yër rek de. la ilaha <laughs> bari na ñu koy sàllaaw bari na loolu bari na ñu ci am ay kaay bari na bari sax. yu wuute yoo xam ne boo dikkee bi ma mujjee am sax bi ma ci mujjee am hmm. kii li ma ci nettali boobu ci Amérique la. Amérique. Mhm. ci Amérique la. li may wax war tamat fukki fan ak euh, juróom wala boog ca lay toll nit nettali na ma ci lu mel noonu. seetal nee na bi ma ko ci nettali nettali na ma ba nettali ma lu ma ba nettali ma ci lu ma xamul sax. ndeysaan nee na loolu te loolu yërëg gëstoo ko waral. te yow da ngay jàpp ne moom dem na fa. Mm-hmm. te fekk ab yërëm <laughs> akub akub gëstoom rek day sànni. akub gëstoom am na ko may ne ne ma ndakaaru gii rek. léeg mm-hmm. dégg waxkat yu mujj yi. <laughs> di wax sëñ Salim <laughs> eh, ndakaaru gii am na jële naa ci seqa bu wóor mu ne ma. Mm-hmm. daan na fi ñëw yàgg fi lool te booba. mel na ne benn barab dama xam ci Medina wala Riix ma fan benn bibliothèque bu fa nekkoon boo xam ne. xëy na borom da ko fa doon bàyyi. Mm-hmm. te xëy na boobu jekku man koo wecc ku mu ñëw ci loxoom amut. amul nga xam ne bu ñëwee da daa daay yendu di ko. bu xëyee fa daan <laughs> daanaka yër na ko ba. ba bibliothèque bi jeex. waaw yër na ko lépp dañuy wax ne Cheikh Anta Diop itam. Uh-huh. daanaka li ngeen koy yéem yéem nii xam nga dañ ne jaxasoon na ak moom. Ah, daanaka ataayaal ah. ci njaareem. waaw waaw waaye dañ ne Cheikh. Mm-hmm. am na am na am na am na am na jotaay yoo xam ne moom rek la ko mënoon a amal. moom ci boppam daan na wax naan am na xam-xam yoo xamante ne fi mu ne gisut kum ci mën a waxal. c'est moom Sëñ Sadi. waaw gisul mu am na xam-xam yoo xam ne moom gisut kum ci kum ko mën a wax daal euh, li ci tane daal Cheikh daal bi muy dund. <laughs> Cheikh Anta Diop wala ak ba muy ba muy nekk. Euh, njaaree ma ko ñëw ci moom daal. Hmm. nee na boobu am na yum daan mën a waxtaanee moom. ci moom moom daal la woon. baarakallah boo ko doon jàngat daal tey jii. Hmm. danga naan Serigne Salif al alim wala Serigne Salif al wali wala Serigne Salif nangam nangam naa waaye jaani bi nga bëgg a topp moom. Hmm. bari na te yaatu ci. jaani boo ci topp rek waaye wàllub xam-xam moom. Mhm. ñëpp dañ ko ci xam naa ne doon gi mu doonoon doomi sëñ Touba. Mhm. ak yaakaar gi ñu ko yaakaaroon ci wàllum wàllum wàllum wàllum. xaqiqa euh, mhm. euh, wàllum euh, ruxaani yaak yu mel noonu. moo tax ñu bari. xam-xamam moom taxul ñu. ñu bàyyi ko xel lu am solo nga wax nii waaye. ndawam gépp da koo jàng. ndawam gépp da koo jàng da koo jàngalee ginnaaw bi. ak am solo. si yow war am na solo lool li tax ma ni am na solo. mooy ñun bu ñuy waxtaanee Sëñ Saaliw li ëpp ci ñi nga dégg ñu di ko waxtaanee mooy borom njurul boroom borom jàppandal borom ndookaa borom xàbbaan <laughs> te njurul ak ndookaa ak xàbbaan ñooy mooy Sëñ Saaliw mu mujj mi. Mm-hmm. waaye si am na Sëñ Saaliw mu am solo am solo am solo am solo am solo moo xam ne war nañ di ko waxtaanee mooy Sëñ Saaliw kaali Sëñ Saaliw borom xam-xam bi mu doon mooy wet jaani bi nga wax nii ndax ku dëkk ci réew mi ku dëkk ci réew mi. ak réew mi li fi nekk ci boroomi xam-xam mu dem ba ab ay xam-xam yoo xam ne am na ko moom tani li tax du ko waxtaani mooy dafa gisul kum ci mën a waxtaanal ku mel ni Cheikh Anta rek la ci mënoon di waxtaanal te yàlla dogal na yàlla dogal na jóge na fi ab mhm. Sëñ Saaliw yu nekkaat fi mhm. loolu loolu day tekki ne yitte ji nga xam ne joxoon na ko xam-xam mhm. ñaareel mooy man xam-xamu Sëñ Saaliw dama ci amaat beneen jàngat mooy ndekete dëgg la ku jàng fukki téere yow mi wër fukki réew mën nga koo ëpp xam-xam waaye it mën ngaa dem wër fukki réew nit toog ci réew mi jàng wax la loo xamut ndax Sëñ Saaliw Sëñ Saaliw yii maanaam nit jóge Amérique mu wax ko fa lu mu xamut nit jóge Caire dikk mu wax ko fa lu mu xamut nit jóge Paris dikk mu wax ko fa lu mu xamut loolu lan moo ko ko may mooy dafa ñeme woon liir waaye ñeme it baax maanaam dafa ñeme woon gëstu may mas nañ may nettali sax ne ma bi mu jàngee ba nga xam ne liñ naan téere yu ñuy tëral moom jeexal na ko tëju na ab diir boo xam ne liir rek la doon def mutaalaa rek la doon def loolu it loolu dafa am solo ci ñu bàyyiloo ko xel ci gone yi nga xam ne ci ñun ñi nga suñ sama classe gi xam ne ci ja ci ci jàng lañ toll tekkiwul ne xam bi ngay teg ñu di la ko tëralal loola rek mooy mooy am njàng waaye it nag yër it maanaam fonk ab yër it dana dolli xam-xam wala boog lépp ci xam-xam sax ci bi ñuy tëral waaye ci yër mën nga ko amee ci yër mën nga koo amee ci gën a yaatal sa baax sa mooy lu am solo am solo am solo am solo solo yàlla nañu ko yàlla fayal. Mm. Cheikh Salih Mbacke moom sëñ Touba Khadimou Rasoul moom la ñuy waxtaanee ci seen émission keppaaru mag ñi ñu ànd ceeg suñ mbokkum daara Serigne Omar Touré ngeen di ko topp ci seen télé Réew mi TV waaye man koo topp yi ci seen Réew mi FM seen rajo Réew mi FM 97.5. Sëñ Omar. Mm-hmm. ginnaaw bi ñu xamee ni sëñ Salih moom borom xam-xam la. sëñ Salih boroom xam-xam la. Mm-hmm. barab yi mu jaar ci wàllu jàng xam-xam bari na lool ba mënee su koo lim mm-hmm. waaye mën nañ cee tudd rek sëñ Mor Saasum Jaxate moom bàyyi xaad yi ma jaxati kala xaad yi ma jaxati kala moom xaad yi naa comme ni nga ko waxee Seexul Xadim léegi du ku ñuy waxtaaneeti ci réew mi ndax daanaka mën naa ni ko ñëpp xam la mm. fu ñu ko tuddee xameef na ko mm. ñu dikk it ci wàllu lu mel ne wàllu wàllu ay injazaatam mm. maanaam yi nga xam ne moom la réalisé ci wàllu sañ sañ ci ay daara ndax bi mu jàngee xam-xam ba am xam-xam rek toogul mook ab xam-xamam waaye dafa yëngatu nag dafa yëngatu ci jéem a taxawal ay daara ndaxam dafa jéem a bind ay téere wala dafa taxawal ay daara nit ñi di fa sàkkoo xam-xam di fa sàkkoo yi lu leew ci wàllu ay injaasaan moo xam naa incha allah looñ ci mën a indi. waaw foofu itam. ndax boo xoolee ku gane 1915 jamono. Mm-hmm. ci début 30 yi. Mm-hmm. année 30 yi bi muy tàmbali. Mm-hmm. nga xam ne kon yow bi fi sëñ Tuubaa di jóge sa waajur di jóge fukki at ak juróom nga am. astaghfirullah matu ko. fukki at ak ñett fukki ngay am. début yi. Euh, avant 40 sanc na ci daara Lumbel Sayel fi mu ne daara yu bëri dañ koy lu ah, Lumbel Lumbel Sayel moom lañ njëkk a sanc ci daara lu eh. soree gi itam euh, ganeeg jamono hmm. soxna waalo ab taawam ab taawam yàlla na ko fi yàlla waaw yàlla na ko fi yàlla bàyyi te te yokk wér euh, loolu nag la ma ciy déggee hmm. li ñuy tuddee tekki ak réalisé gone <laughs> léegi daanaka fanweeri at jëm kam ñu bari ñun dañuy jàpp ne léegi <laughs> uh-huh. lu jiitu fanweeri at ba tey gone nga émission bi weesu maa ngi wax lu léegi nag moom moomu <laughs> xoolal foofa nga xam ne bu doon léegi ñun moom da ngay jàpp ne ba léegi sa kër bàyyi nga war a nekk wallaay ndeysaan uh, wala boog ci loxo yi nit nga war a nekk mm-hmm. moom lu jiitu loolu moom mm-hmm. ba jàppal ne rek mm-hmm. ndegam ñaar fukki at ya mat na ba moom fekk na mu jëmmal la muy jën jëmmal foofa dañuy wax ne sax lu jiitu loolu sax ba muy jàng ca mbaakool hmm. am na ay benn benn dongo yu ñu ko jox mu leen di jàngalaale hmm. dañuy wax ni hmm. foofu la njëkk a bàyyee aw sa jibal ko ak xalif ba sëñ sëñ mënu sa li mu kilo yi laay fàtte waaye nawet waaw da koo teel a tàmbali ba mu ci jógee yi tamit la xam ne moom daa war a def dara daa war a jëmmal dara xam na ne noonu la ko defee ca année début année trente ci la tàmbali xam nga ku judd koo xam ne vingt wallaay ndeysaan lu ca topp rek. Ah, ah, ah, jëmmal na sañ tàmbali naa tàmbali naa sañ ay daara ak di kii noonu. nga xamante ne loola ca la doxee. baal ma si war doguma la. Mm-hmm, mm-hmm. émission bi wees rek maa ngi wax lu mel nii. Mm-hmm. ci ne léegi dangay gis ko am 40 ans ba 50 ans di dugg. foo ko déggee mu waxee ñun jeunes ñun jeunes yi rek lay wax maanaam moom boppam ci gone yi la ko boole. <laughs> ci laa kiy joxe misaal El Hadj Ibrahima Niass Baye. nga xam ne 1900 la gane àdduna. bi muy am vingt ans fekk na taalif na téere bi muy am quarante ans taalif na lu mat ñeent fukki téere lu mat fukki téere sanc na ay dëkk mm. léegi yow natt ci sa maanaam yow mi nga xam ne yaa ngi toll ci année quarante jëm cinquante nattal sa dund ci dund Cheikh Ibrahima Niass Baye maanaam mooy misaal mi nga joxe ci Sëriñ Saalihu nga xam ne daanaka bi muy am ay trente ans rek daanaka wala lu ko manqué mm-hmm. moom sanc na daara mm-hmm. yor fa ay gone di leen jàng nga xam ne moom commencé naa participer ci li nga xam ne jàpp na ni ma war a defar société bi. ma war a defar société bi. baarakallah wér na kon noo noo noonu nga waxee rek noonu la demee. Mm-hmm. noonu la demee tabaarakallah. Mm-hmm. Mm-hmm. kon euh, yàlla dogal na daal ku teel a. ci ñaar nga xam ne ñaar la njëkk a sanc ñu bari nag yooyu nga xam ak yi jiitu xel ko moom. ci at yu mujj yi la rek. at yu mujj ci mujj xilaaf ak sëñ Abdul Ahad waaye am na daara yu baree baree bari yu ko jiitu. ndax da ngay wax njàpp ndal mhm. ah, ñu mhm. bari itam njurul jege gim jege Touba tax ñu mel ni dañ koy xam waaye am na yeneen yu ko jiitu yoo xamante ne ay lagan ak ndooka ak yooyu fekk na mu réaliser njëkk mooy doonub xalifa uh-huh. fekk na mu jàng jàng jàngale ak yar uh-huh. ak tarbiye uh-huh. mu jëmmal ci lu baree baree bari loo xamante ni euh, nit ñi xamuñ ko ndax euh, léeg-léeg nit ñi nit ñi nit ñi ba mu baax danaan dañuy wax day faral di wax naan sëñ Saliou mii ma xam daa bokkut ak mii mii ma dégg ñu koy waxtaan daa bokkut ak ma ma xamoon <laughs> nag day leen foofu ndeysaan nag <laughs> xëj na <laughs> nekk gam nekkoon ci la la ko war ba xumul xumul maanaam euh, mel ne lu mel mel ne lu doon ab inconnu ci société bi muy dund bañ ko waree xam it daa fekk hmm. ni ko nit ñi amatu ah, nas xamee daa fekk. Mhm. nit ña ko xamoon moom xamoon nañ ko ca wet googu ba noonu. dëgg xam ne ñooñu moom li ñuy xam rek mooy. Mhm. diggante xilaafa gi wala lu ko jege la. loolu rek la ñuy xam waaye fekk moom lu muy jëmmal jëmmal na ko. Mhm. jëmmal na ko ca booba. moos moos loola itam lu mat a bàyyi xel la. lu am solo euh, li mu jëmmal ci wàllu jàngale yare dañ ne. dinaa la ci jox rek benn tënk bu gàtt. jël nañ ci sëñ Maxtaar Kebe mu wax ne. Euh, yaakaar na deux mille euh, deux mille sept la fi jóge dañ ne ci dun ci ci ci ci fukki atam ak ñaar la fi. Mhm. la fukki fukki dong ñaar ci la tàmbalee. ci fukki dong ak ñaar. waaw. Mhm. Euh, wala boog lu ko jege nee nañ bi mu demee ba ci mujj xilaafaam ci deux mille sept ah. fekk muy. xottil dong yi ay yére. Hmm. li ma la wax maa ngi koy euh, jëlee ci ku ñuy wax sëñ Makhtar Kebe. sëñ Makhtar Kebe. ku ko ku xam da nga ko xam ak. Euh, hmm, borom xam-xam bu mag. <laughs> Uh-huh. nee na. Uh-huh. Eh, mu laaj ne mbubb yi nu mu toll bi ñu ko doon bi ñu noppi ne daa fukki mbub fukki fukki fukki junni fukki junni mbubb ak ñaar ci la toll. nga xam ne kon fukki junni nit ak benn fukki junni ndong ak ak ñaar ñoo fa nekkoon. jamono ñoom lañ doon xool boo ko defee man loolu sax digg naa ne ah loolu de kon day nangu am nangu ab liggéey la. daa mel fukki ak ñaar léegi nag imagine toi <laughs> li foofu li ma ci taxaw. Uh-huh. seetal aw askan. Mm-hmm. ko ca yor fukki junneeg ñaar. Mm-hmm. ci ay nit di leen dundal di leen jàngal di leen yar grand di leen wodd waaw sëñ bi <laughs> ko di leen wodd di leen dungal di leen jàngal di leen yar te dara war ci ay <laughs> ah, waajur ah, waaw ku mel noonu <laughs> nan lañ ko wet googu rek bu ñu ko doon jàng nan fan lañ ko war a karaas si classe société société bu mu nekk léegi loola bu ko bu ko commande dara ku ne xalaate woon noonu rek mm-hmm. moom mu yëg la ko war ci askanam mm-hmm. la ko war ci askanam kenn mm-hmm. ku ne yor téeméeri nit rek. Mm-hmm, mm-hmm. taxawee ko wet googu yow xoolal ban société ngay am. jamono ji ñu toog rek damay wax ne ci li mu mm-hmm. jëmmal. bari nañu mu tàggat ci wàllum mbay. dama naan euh, suñuy kilifa yu réew buñ ci sukkandiku woon. mën nañ cee jaar réew mi li ñuy tuddee auto autosuffisance alimentaire. alimentaire buñ ko mënoon a buñ sukkandiku woon ci ñim yar jàngal leen. mën nañ mën nañ cee jaar taal réew mi. taxawal réew mi ci wet googu ndax dama rek. fukki nit ñu nekk. Mhm. nga jox leen ñaari tracteur ñaari tracteur <laughs> ak Sénégal ni mu yaatoog suuf. fukki nit ñu ne. waaw nga boole leen ñaari tracteur ñaari tracteur loolu boo ko defoon fii fukki at rek. <laughs> Eh. sëñ bi sëñ bi loolu. loolu lu ko lu ko gën a gaaw ci développé réew amut waaye nag euh, damay wax ab koo xam xaw ma politicien la xaw ma activiste la ñu koy wax coon ñang ah. ma koy faral di dégg. Ah. dafa apprécier doxalinu sëñ Saliou day ko yàlla yee. ndeysaan waaye moom toujours boo koy wax day mel ni sëñ Saliou mooy idolam la wax. ci wàllu ci maanaam ci wàllu liggéey kon nag ah. kooku daal doon na koo xam ne réaliser na lu baree bari loo xamante ne. Eh, bu ñu taxawoon fii di ko jàngat. lu mm-hmm. luñ mën a sukkandikoo. Mm-hmm. développé réew la ma door a ñëw ci nag. Mm-hmm. defar nit. ndax buñ dee defar nit kat. ci wàllu defar ko jàng def ci moom xam-xam ba mu mën a liggéey. ñoo ñu ngay gis kat. defar na leen defar goo xamante ne. loolu ma naan la ko ko tegoon ci seen loxo ñu jëmmal ko. am naa yaakaar ci ne. doo ci am ndax nit des na ko jàngal yee ko ba mu ne jaar la waaye nag boo ko boo ko boo tegee loolu ci loxoom. ndax dana la mën a euh, rendre service comme na nga ko bëggee. wallaay ndeysaan waaye moom dana defar nit ki ba nga xamante ne yaakaar naa ne. Mm-hmm. dana def ci yow ak teewloog bàyyi xel borom bi ba. xel sa borom ba ragal yàlla moom laa bëgg a wax. Mhm. ba yaakaar naa boo ca noppee. Eh. ñu mel noona ndax lay manqué ci li ëpp ci ñi ñuy defar ak a yar. ci doxinu réew mi. ñaari xarañ nga dana fa nekk waaye nag. Mhm. ñàkk bàyyi xel borom bi léeg-léeg ñu mel ni man loolu da cee am ba duñ mën a jëmmal lu bare bare léeg-léeg day am na solo si mhm. surtout ci dimension bi nga xam ne moom nga indee Sëñ Saliou nii mooy li mu réalisé ci wàllu ay daara yu demee noonu. maa ngi koy wax léegi am na solo. ndaxit it fi mu ne toujours nit kii dafa war a bàyyi xel ci ne. temps bi xaarul. lenn lu ci nekk fa mu jotee rek. lan nga ca man def ko. mooy ndax fi mu ne mooy tax fi mu ne gis-gis bi Sëriñ Saaliw am. ci bi mu to bi mu noppee ci njàngum alxuraanam. dem di ja di jàngi xam-xam. fa muy jàngee xam-xam mu xam ne way juróom bu góor ka nekku fi. waaye sëñ Mourou safaa fi nekk. mi nga xam ne moom moo taxawi taxawaay seen waajur mhm. muy muy góorgóorlu mhm. di jéem a bay as ñebbe di ko it sëñ Modou Moustapha addiya mhm. loolu it maanaam day daa daa war a maanaam man li ma ci bàyyi xel mooy que ne fonk kilifteef sëñ Tuubaa dafa waxoon ne ñaar ngi yoo xam ne defuma ko ci mbàkki waaye dama ko fee fekk muy teel a wattu alxuraan ak fonk kilifa nettali bu siiw la boo xam ne dañ ne sëñ nee na ñaara ngi yoo xam ne ci mbàkke laa ko fekk waaye andiwuma ko fi muy teel a wattu alxuraan ak fonk kilif kilifteef loolu fonk gi mu fonk kilifteef maanaam ak it teel a jéem a def dara loolu da cee dafa am solo ñaari bayit mooy comme li mu euh, réalisé ci wàllu defar nit nga xam ne fukki nit ak ñaar ci la tàmbalee ci 2007 ñu natt ni fukki junni ak ñaar léegi te jamono booba lañ wax 2007. fukki junni ak ñaar. léegi xoolal 1940. ba 2007. maanaam ñaata ñoo mokkalee ci ay loxo mu defar leen yeewi leen ñooñu di dem ñeneen ñëwaat ñooñu dem ñeneen ñëwaat par sénération par génération. Mm-hmm. ba bi mu fiy jugee mu toll ci fukki junni ak ñaar yoo xam ne jamono booba ña nga ca loxoom. Mm-hmm. nga xam ne fukki junni ak ñaar yi mooy jamono booba. Mm-hmm. ñam doon xottil. ña leen jiitu nag. léegi foofu itam danaa fi taxaw. <laughs> Uh-huh. ab defarim tam uh-huh. Euh, lam daan aw dégginam ci defaram itam lam daa wax naan du ma man du ma xatal lu yàlla yaatal <laughs> aw dégginam ci defara defaram itam ci ñoom jam ci ñoom jamonoom mm-hmm. léeg-léeg ab déggin da xat lool ju bëri dañ koy mm-hmm. tënk ci rek ña daan yeewoo ci biir daaraam sëriñ bi mm-hmm. li ñu tuddee tarbiya à distance da koo def ñu bëree bëri xoolal ci xilaafaam ci xilaafaam ci ngay gisee xale bu nekk mag bu ma nee xale bu nekk man mooy ci xilaafaam ci la leen xewe koo xamante ne ba mu juddoo ba am juróom-benn at wala juróom-ñaari at. école française lañ ko dugal. dara ci njàngum diine xam xamu waaye bu ci nga ci xilaafam ci nga gisee daayira yi ci biir. li sama benn mbokk naan daayira daayiraisation urbaine. ci biir xilaafam ci nga gisee lenn xewaat. xale yoo xamante ne dañuy jàng jàng jàng ba ba am agré agrégation walla walla wala wala wala wala lu ko lu ko jege. Uh-huh. te boo leen gisee doo gis benn jeexital ni kii. Mm-hmm. culture. Mm-hmm. Euh, française wala tubaab mm-hmm. jeexital la ci ñoom. nga xamante ne da ngay gis xale boo xam ba nga ci biir université bi yoru bàyyi laatam uh-huh. wala wala ci biir collège yi waaw <laughs> loolu sax saalixaal yi sax man nga ne ginnaawam la xewaat <laughs> eh, eh, eh, waaye ci biiru xilaafaam hmm, hmm, ci la leen xew xoola hmm. xam nga xasida ni ñu ko daan jàngee coté bu da ciy dugg dañ daan daje rek bu dimanche jotee wala bu jeudi vendredi jotee ñu daje daal di jàng waaye niñ koo xaw a nosee nii nga xam dajale di repete di dajale kii mag ña. dëgg la dëgg la lu am daal jëmmi ci xilaafaam daa defar ay nit ñu bëri xam nga léegi. daa tarbiya ay nit ñu bëree bëri ñoo xamante ni boo demee sax mosuñ koo jox jox loxo su ma nee tarbiya mooy dafa marqué époque am ba nit ñëpp bëgg di moom dëgg la baarakallah <laughs> baarakallah bu nit dinaa la jox misaal daa am benn mag ma doon benn xale bu góor boo xamante ni bi may door a jóge daara ay 2004 2005 hmm. daa ñëw daan hmm. Hmm. Uh-huh. di ma laaj ne ma man daal damaa gis ne léegi dañ ne xaside yi day tarbiye nit te man man boobu ba léegi daal <laughs> gisuma man man boobu léegi maa ma ne ko ma ne ko déedéet taxawal <laughs> ma ne ko déedéet taxawal tarbiya eh. mooy lan da ngay yaakaar tarbiya bi nga xam da ngay naaw ci jaww ji wala da ngay ma ne ko déedéet <laughs> ah, ah, ma ne ko seetal yow hmm. saa boo ma ne ko looy liggéeyee hmm. ma ne ma nangam ma ko yow li ma la njëkk seetlu rek fi mu hmm. nii yére nasaraan li lay booleeg moom mooy liggéey bi. saa ba wàccee taakusaan jël nga sa téere ñëw fii tëral lu majaalis. ma ne ko yow xalaatoo samedi ak dimanche nga dem nga dem nga dem ci barabu fowukaay yi mu ne ma ah. léegi xalaatu ko ma ne ko léegi loolu nag yow ba nga duggagut fii ndax loolu danga ko <laughs> ma ne ko loolu nag lu mel noonu ah. ci xilaafam la amee ah, jàppal ne Sénégal gépp jeune Sénégal yëpp mm-hmm. xam naa li ko yàlla jagaloon tarbiya ak yar ak yàlla xiiroon ko ci gone yi mm-hmm. loolu daa jeex daa bëri ay maanaam lim boobu nga tudd ci daara ji mm-hmm. Mm-hmm. jàppal da defar defar na lim bu ko bu ko bu ko triplé bu ko triplé te ci biir diir boobu la jamonoom moom ak xilaafaam moom ak defaru dafa xew. Hmm. te moom fa mu toog lay defar defar nit ñi. wallaay lazim wallaay mën a bàyyi xel la moom. wallaay lazim wallaay lazim booba booba lu jëm ci mba wàllum diine ak colub diine yooyu ay mag lañ ko miine woon. ay mag lañ ko miine woon waaye dafa décomplexé murid yeeg. Hmm. jeunes yi xale yi nga xamante ne. Hmm. Euh, foo nekk dund fa sag murid ak sag doxalin du doon dara ci yow. baarakallah am na solo am na solo suñu Omar <laughs> loolu nga wax noonu suñu Saalix comme ci ni mu daan tarbiya. Euh, dafa am solo surtout wàllu xasaayit mhm. maa ngi ko man kër Serigne bu laa nekkoon mhm. dañ daan def talaata bu jot dañ daan dem di ko jàngale xasaayit mhm. bu njëkk dañ daan roy waaye ngir yóbbu suñu njàng ci njàngu mag ñi moom Serigne Saliou moom moo ñu ci yóbbu dañ daan def bu njëkkee bu ñu ko jàngalee ba noppi benn bis dafa woow suñ kilifa suñ Mahmoudat bi so maa koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla yàggal ko te wéral ko am na ko ñu naan Saliou Ba ku nekkoon xel ko moom la ñu booleel mu jox ñu kasiti Serigne Cissé yi ngir suñ jaar ngir njàng mi gën a dellu si ci cosaan ci cosaan <laughs> mooy li ngay wax nii loolu man firndelee ci <laughs> parce que man maa ko dudd maa ko fekk <laughs> gis nga ñun man maa ñun man maa ànd ko kuréel ñu taxaw jàngal sëñ saalihu mu jox ñu ndigal ci ñuy roy roy mag ñi woo kuñ naan saalihu ba sama kàddu gi mën na koo déggee fu mu nekk mm-hmm. géej naa ko gis xamatoo ci lu mu nekk mm-hmm. waaye mën naa dégg sama kàddu gi saalihu bala ñu si saalihu moom booleen mm-hmm. moo ñu jox kaseeg siñ siisee yi ak <laughs> am si naa daa mel ni waxtu wi daf ñoo njëtt <laughs> ndax li ñu amoon ci temps bariwul ndax euh, xaw a tar li xaw a tar waaye am na solo daal xam naa fi ñuy mujjee rek mooy que ne xanaa dañuy yëkkatil ay kàddu yu tàggoo bëggoon nañoo dikk ci relation bi mu am digganteem ak njabootu siñ tubaa gi waaye waxtu wi daf ñu koo mayul li am solo te am solo mooy li ñu taxoon a jub mooy ñu xam kan mooy Serigne Saliou waaye lan maanaam euh, empreinte bi mu manqué bi mu marqué ci jamonoom. bi mu marqué ci jamonoom liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam ay bindu yoo xam ne mën nañ ko cee jukkee ngir mën ko cee roy incha allahu taala nga xam ne bu ñu waxee duñ duñ ne Serigne Saliou rek ñu ne iskay borom jamono. borom jàppandal borom dookaa déedéet waaye ñu man koo déggee ci weneen déggin woo xam ne man nañ ku ko dégg mën cee jariñu moo xam jullit bi la même ki dul ab jullit sax bu ko déggee mën cee jariñu mooy nii ñu waxtaanee Serigne Saliou xam naa suñoo war dañuy wax kàddu yi xam ne moom ngay tàggoo rek su ko defee ñu daal di yëkkati jotaay bi incha allahu taala euh, kàddu yu tàggoo yi de mooy di sant ak di gërëm mm-hmm. euh, di gërëm Cheikh Mahamadou Lamine Bara ndax xéewal gu toll nii tamit mm-hmm. wax loo xam ne jàpp nga ne ab jullit dana ko jër jariñoo ci moom mm-hmm. rawatina ku baax kii ñu doon wax ci moom mm-hmm. loola ku la ku la ca yóbbi mm-hmm. koo xam ne sabab sax ci moom la jaaroo mm-hmm. kooku ameel nga ko cant ñu ngi lay ñaanal nag yàlla téyel la émission bi euh, ngay boroom xam-xam boo xamante ne jafe na ci borom xam-xam yi mel as jàngkat yi mel ni man ñaare cawarteeg tasaare xam-xam ci mel nii moom ndimbalul yàlla ay tax <laughs> cawar am ci cawar am ci maa ngi lay sant bu baax nag waaye ndax yaa tax ba ma ba ma ba ma mën ne sojjet ñëw ci yu mel nii te incha allah ubbi nañ bunt bi ci wet googu bu soobee yàlla incha allah ñu ngi ñaan yàlla taxaw la ci émission bi kër gi it yàlla sotti fi xéewal waaye nag duñ tëj te ñaanal euh, suñu kilifa ak mbokki kilifa yi diine mi mu seq réew mi yëpp di ñaan yàlla euh, dëgëral leen te def ci réew bi jàmm euh, te barkeel barab bi barkeel mbooloo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah suñ mbokkum daara Serigne Omar Touré la woon. moom it bokk ci kenn ci ci njaboot gi nga xam ne ci keppaaru Serigne Salih la ñuy naanee. Mhm. baarakallah ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax a baax di ñaanal it suñu woy juróo Serigne Salih Touré. Mhm. suñu borom. yokk ay leeram ca barsàq muhammad yi di ñe moom mboolem njabootu Serigne Saliou ga nga xam ne ñoo ko fa jiitu ak ña ko fa fekk ginnaaw bi ñoo koy ñaan bu baax a baax yàlla yokk ay leeram di ñu siyaara bu baax Serigne Mourtada Touré maa ngi koy siyaar bu baax moom it sama xel dem na ci moom mboolem ñi nga xam ne ñi ngi doon topp seen émission keppaaru mag ñi fii la doon xewee ci seen télé Rewmi TV di euh, nekk solida imamul alhaaji Mouhamad Lamine Bara Mbacké Fadilu seen ngeen ci àndoloon ngeen di ko am dimanche bu jot 22 lu ci jub yàlla lu ci dëng matadik doomu aadama la in uridu ila al islaaha mastata'tu ma tawfiqi ila billah wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh Ahmad Souleymane bi sarfi al masiyaati kayma taqooda simaamin lirrasiyaati adan lidaa zdaada qalbi uzna bahjatihaa wa wajahat li hadaayaa bil mabaraati أمسدت طيب نفسي كي أميل لها وولت ميل قلبي للهديات وخاطبتني بما يدعو لغذبتها وأزغرت صدق وعده بالرقيبات